clients y ñoo fekk si leen si nous rester sur place peut-être que nous sommes ambulant dañuy nekk fixe te loolu yëpp l'initiative initiative euh, monsieur le maire cher Issa Sall parce que loolu lu am penser aux autres penser aussi aux marchands ambulants nous sommes ñoom nous si yëf yi lañ si kër gi lañ est de la objectif répondre aux attentes euh, population la def Il faut que ni Mbour dina changer visage parce que bon environnement le cadre de vie le développement lépp le tënk lu bëree bëree donc c'est une commission transversale et une commission xam incontournable comme ni ma ko parce que les mbuur nous avons soxla mu environnement d'une manière générale un environnement sain Nous avons tamit mu rafet mu taaru mu répondre si dëkk bi taay bi ak dëkk bi li recettes dëkk bi économiquement ak ni muy doxee ak comme on a un nouveau maire un maire boo xamante ni il est jeune un maire boo xamante ni il est là pour répondre aux attentes des populations dina tax nga xamante dëkk Mbour si ñun liñ si xalaatagum parce que gis ngeen jéego yu mu fi defagum si côté surtout environnement ak cadre de vie bi si marché boo ko jëlee ak stade Caroline Faye ak yeneen ak yoo xam ne yëpp mu ngi koy def dinañ am nañ si yaakaar tamit ni ko incha allah a ah, dinañ waa Mbour dinañ kontaan si liggéey bi nga xamoon moom lañ. waaw li ñu leen di wax mooy bu ñu jaayee ba ngoon jot ñoom balaa ñuy jaay lépp dina set ñun déjà ñu ngi fii tey ak suba yëpp defar yëpp ba mu baax comme ça seen cinq jours d' opération yi nga moom lañu am pour korité bi ñu teel tenir ko mais tamit tenir tamit lieu bi tamit muy set parce que tamit bu nekkee ñii dañuy defar ñii di yàq. affaire bi du dem ñom buñ jaayee ba ngon jot war ñoo jël côté biñ jaay kenn ku si nekk sa place li ci am nga dajalé ko def ko ci ay poubelle yi nga xamni on va les mettre à leur disposition nga xamni dañu yombal tamit UCG liggéey bi nga xamni ñu def le lendemain parce que dañ ñëw di nettoyer dañ ñëw di gor gorlu ba nga xamanteni ni dina set comme ni mu war ay nit suñu bokké jëmuwaay way boko benn dëkk am ay xalé ñu yëngatu di liggéey ah tayit ñu am maire bu bees mu am. lu mu taxawal lu bees muy bëgg ñun ñëpp ñu nekk si jàmm mu bàyyi artères yu mag yëpp ñu bàyyi leen mu libre oto bu bëggee jàll jàll nit bu bëggee jàll jàll ñëpp nekk si jàmm comme nag yi fi doon am maire demande à ce que comme libéré nañ tali bi marchand ambulant yi ñu xool fu ñu leen recaser ñoom it pour événement bii di ñëw muy fête Korité bi ñoom it ñu am fu ñu mën a nekk jaay jot seen wërsëg ñëpp nekk si jàmm kenn bañ a déranger sama morom loolu moo waral maire nañu léegi na ngeen dem xool tribunal bu njëkk bi ngeen aménager ko ànd ak waa UCG ñu nettoyer ko ba mu rafet ñu daggal leen ko ay place ñoom ñëpp ku ci nekk toog liggéey ñu wàccee leen courant ñu liggéey seen liggéey ba événement yi jàll ñu xool naka la ñuy def ak ñoom suñu xoolee mën na romb ay trois cent places war na ko mën a romb mais nag comme ñu

kon fexe leen de sorte que ngeen rafetoo ba kenn ku ci nekk luy sa wërsëg nga jot ko moy bu fi ñëpp xajulee tamit ñi ci dess ñu xol feneen fuñu ñu leen yóbbu mais nak ay ciow ñu fi am ay ki moy président kële moy président lolu ça importe peu pour ñun ñun li ñu tax jog moy ñi fi yëngatu yëpp ñu fexé nuñ fuñu ñu leen dugal ñu mëna a yëngatu ay affaire président yoy nak ñom bu démé demee seen kuréel ñu régler ko ñun néwuñu fi di régler ay affaire président de toutes les façons bu ñu ñëwee war a joxe place yi dinañ ko joxe si dëgg mooy même bu ñu ëndalee ñaari liste si man li décision bi ma jël su ma jëlee fii benn nit dama jël fële benn nit continuer ba place yi jeex fu ma yem ñu xam ne fa la yem. parce que man new ma fi di régler ay ay ay contentieux néewuñu fi tamit pour andi ay coow dañu bëgg ñëpp nekk si jàmm ant kan euh, kantaan nag ñoom ñu naan kii mooy président kële mooy président loolu ñoom la engagé ñun marché ambulant yi la ñu wax. maire wax na ne marché yëpp. boo xoolee marché secondaire yi ngay wax ni yëpp soo demee place yaa ngi fa en pagaille mais gars yi nangu ñëw dugg si place yi peut-être am na ay marché yoo xam ne am na loo xamante ni war nañ ko defaraat dinañ ko defaraat mais yeneen marché yi place yi ñu nga li mu wax nag c'est clair dans trois mois képp ku fa amoon cantine te defaruloo ko dinañ ko jël jox ko ñu ko soxla ñoom ñu liggéey déjà nag ñun marché yi ñu demagum am na ñun ñi déjà ñu ngi commencé di defaraat seen ay cantine mais nag ku toog defaroo sa yëf ba ñu yegg ci date bi ah effectivement suñ ko jëlee nga xam ne waxoon nañ leen ko parce que tamit nit ñi mënuñu bëgg ay cantine bëgg a liggéey yow nga ñëw pendant dix ans quinze ans nga ne yow yaa occupé cantine bi tabaxuloo ko liggéeyuloo fa te nit ñi soxla ay cantine loolu xel mënu ko nangu kon ñun ñëpp bu fekkee dañu bëgg a dëkk bi jëm ci kanam il faut kenn ku nekk nga dugal ci sa loxo te it marché pour ñiy jaay la marché nekkul ne damay ñëw rek ne man maa moom cantine yi def ko fii presque genre meuble pendant des années liggéeyuloo te ñi ko soxla toog fii ñenn ñi boo demee ci marché yi sax la majeure partie dañu dañu luyee cantine yi kon ñi soxla cantine man mën nga wax ne peut-être ñoom jotuñu ko te loolu il faut ñu régler ko